nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a nekk rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjj na rek nag